Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak m md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay réew mi quotidien la ñu koy dooree moom mi xëy àddu jëmale nag ci ndaje mi nga xam ne ñii di waa APR doon nañ ko amal ngir taxaw seen naataango bii di Ahmed Suzanne Camara yéeni kaay bi ne APR jamono ji nag ma ngay génn ci cellaaral gi mu nekkoon na ñoom nag ànd nañu ak seen i député fas yéene dal ci kaw nguurug Sénégal li ñu bëgg ci saa si tembe mooy ñu daal di teggi loxo kii di Ahmed Suzanne Camara bàyyi ko te bañ koo toppee de parquet boo xam ne rek jot na ko am moom Ahmed Suzanne Camara teg loxo googee ñu ko teg loxo nag yéenekaay bi ne ñii di waa APR mënee suñu koo nangu ña ngay sàkk ñu daal di koy libéré ci nu mu gën a gaawee tribune yëglekaay ne waa APR kay jamono ji nag jël nañu coow li def ko seen xeexu bopp nag fi mu toll nii li ñu bëgg rek mooy Ahmed Suzanne Camara ñu daal di bàyyi mu ñibbi këram ñoom li ñu jàpp nag mooy régime bi nga xam ne rek moo fi nekk ak li mu tàmbali di teg loxo ay nit yoo xam ne rek dañoo fare ci opposition bi nag nee ñu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg li gën a am solo tañ leen ciy xaar bokk bokk na ci liggéey réew mi di wane ay preuve moo gën ñu jàpp askan wi di leen tëj ci anam yu jaarul yoon bés bi le jour ne fi mu toll nii kay nag teg loxo gi ñu teg loxo Ahmed Suzanne Camara nag ñii di waa APR ñu ngi koy ñaawlu ba noppi di vaar Ousmane Sonko Walf Quotidien xëyee ni ki tey jii nag lu jëm ci wàllu émigration clandestine bi nag yéenekaay bi ne ay gaal yu bëri fi mu toll nii ñu ngi bàyyeekoo ci réew Sénégal di dem di mbëkki ca biti réew lu toll ci juróomi téeméer ci ay candidat nag jot nañu leen a teg loxo ci ay bés ji ñu weesu lu ñu mel nag daal di fësal yokkute gi ñu nemmeeku ci candidat candidat yi nga xam ne rek ñooy bàyyeekoo fii ci Sénégal ngir wutali ca Espagne le quotidien yëglekaay ne ko ca diwaan bu Saint-Louis nag foofee lu jëm lu ci deux cent ci ay candidat yoo xam ne rek ñu ngi leen jàppee ca ñaan yi réew mi quotidien nag moom itam àddu jëmale ci lu soxol publication rapport yi nga xam ne rek moo ñeel inspection générale yu état bu Sénégal yéene cabinet waa forum civil jamono ji nag nee ñu mënatu ñoo xaar nañu ko publier rapport yi bu ko defee ñu xam lan moo ca tukkee tribune yëglekaay ne moom kay fësal gi ñu war a e bi nga xam ne a amee bi nga xam waa FMI génnee nañ ko ci conseil d'administration bi nga xam ne rek dañu ko reporté yéenekaay bi àddu nag ci lu jëm ci wàllu faux eurobond yi nga xam ne rek moom la di baa xamle koppare ca tukkee jëwriñ ji dénk wàllu finance ak budget moom nag teewul woon ca kanamu conseil d' administration bu FMI mu dib ndaje moo xam ne rek ñu ngi ko doon amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu weesu doon ca waxtaanee nag lu jëm ci eurobond yu mujj yi nga xam ne rek toll na ci quatre cent cinquante milliards loolaa waral nag ba moom moomee di dibaa nag tax na ba fi mu toll nii Sénégal nag du mën a jot lu toll ci deux cent trente milliards yoo xam ne rek waroon naa dugg ci réew mi laata weeru décembre àddu jëmale ak l' observateur tey jii nag mi ngi xëyee lu jëm ci tëj gi ñu nar a tëj ay entreprise yoo xam ne rek dañoo am jafe-jafey fiscalité entreprise bi nga xam ne rek moo di Paris sportif di première bet bu Sénégal moom nag ña ngay xam ne ni daal daañu ko ndar képp fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu jëm ñii nga xam ne rek seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu fiscalité nag ñoom ña ngay xam ne ni nag liggéeykat yi ñoom waruñoo doon ñi nga xam ne rek ñoo di agneau du sacrifice addu jëmaleeg source a mi nga xam ne rek wax na tey jii nag ci rapport beneen boo xam ne rek moo tukkee ci observatoire national bi jëm ci lieu de privation de liberté yéenekaay bi ne lu toll ci douze mille neuf cent dix ci ay prisonniers nag ñoom jamono jii dañ leen a xañ seen liberté nekkin bi nag fi mu toll nii doy na waar ci biir kaso bi laa séglekaay ne ko ci ab rapport boo xam ne rek waa ONLPL amal nañ ko ci atum 2023 bi nag di saytu barab yi nga xam ne foofee la ñuy denc prisonniers yi daal di nañuy ab tableau bu ci nekkinu prisonniers yi fii ci ña ngay xam ne ni nag conditions yi dara jaarul ci yoon lu jëm ci seen nekkin ci biir selil yi nag la ko yàlla nëbb amul kenn ci ñoom koo xam ne rek ña ngay sàmmonteeg say àq ak say yelleef loolaa waral nag ba boobee observatoire di yëglu ci kanamu kilifa yi Sénégal ngir ñu jooyantiwaat